ab bisub set setal la boo xam ni ka ko amal moo di agence sénégalaise de promotion touristique ci corniche bu Almadies ASPT di tontu ci wooteem njiitu réew mi ngir gën a taaral xar kanamu gox yeeg goxaat yi fii ci Sénégal. dañoo war a wër Sénégal maanaam juróom-benn pôle yëpp pôle bu ci nekk dinañ choisir weer boo xam ne dañ fay dem pour ñaax xale yi ñaax ñëpp ñu jàpp ci set setalu dëkk bi ñu xalaat ne comme que dañ naax naan ci tubaab charité bien ordonnée commence par soi ñu commencé ko fii nga xam ne amul fu ko ci gën a développé loolu rek dafa doon loo xam ne waroon na mën a tax ñu tànn fii. mu di activité boo xam ni mairie bu Ngor daal na ci dugal loxo ba naka noonu yeneen kilifa yu fasantikoo li waral bés bi nag tey mooy li nga xam ne lu ñu yàgg di def la mooy di setal ak di maintenir di fexe ba sunu gox yi di gën a taaru. ah loolu nag dafa nekk luy dëppoog li nga xam ne njiitu réew mi moom la woote mooy ne woo Sénégal yëpp ñu fexe weer bu jot ne serait-ce que benn yoon la ñu daje seetal seen gox. vraiment su ma ñëw fii man tey c'est je suis venu en tant que citoyen ñëw pour mandargaal solo ndaje bi nga am ne moom la ñu am tey. Euh, set setal dafay dafa nekk loo xamante ne nii lu lu lu normal la ci askan bi dafa war a xam ne lu am solo la loo xam ne nii bu fekkee dañ koy def weer wu ne. Euh, dina tax nit ñi xam ne set setal dafa am solo. journée yi ni mel agence sénégalaise de promotion touristique fas na yéene daal di koy gën a baril ñu ciy woo askanu Sénégal.